Bienvenue sur Salam Vision. ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla woo bismil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dolli noo auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima auzubillah bismillah tuni wal yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku internet yi nga xamante ni yéen a suivre seen télé bu rëy bi nga xamante ni mooy Salam bu baax a baax dellu si waat ci suñu biir jotaayu xam-xam yi nga xam ne moom la leen faral di dégtal saa su ne ñu gën ko xam ci faj sa jàngoro buñ ne faj sa jàngoro nag kenn ku ne xam ne ne àdduna moom suñu borom subhanahu wa moo ni ko bindee def ci lam ciy def ñu war a àndandoog moom kenn ku ci ne war cee dox sa mission doonte ñun suñu mission la ñuy dox waaye jàngoro itam mission la ñuy dox ndax yàlla leen wàcce ci wax na ni mboolem jàngoro boo xamante ni wàcce na ko ci daaru dunya muy tegu ci kaw doomu aadama la koy saafara ma nga ca wetam amaana gëstoo fa yeggul wala xam-xama fa jotewul wala lu mu ci mën a doon da ngeen ci am lu leer ci biir suñu jotaay nga xam ni moom la ñu leen dégla saa su ne tey nag ñu seet si koo xamante ni wax dëgg yàlla nee naa jamono yi dama mel dañ ko génnee réew mi wala dañ ko dàq réew mi waaye daal xam naa ni waxatul Ndakaaru dara <coughs> Serigne Souleymane Diouf moom la ñu seet si tey bëgg a waat ak moom lenn ci xam-xam waaye lenn itam ci génn yi nga xamante ni jamono yi génn na ko dëgg man ko fee nga xamante ni mooy suñu réewu mbokku naar yi waaye tamit ci li nga xamante ni capacité la cër la jagle la don la ak ndimbalu yàlla mu ciy dimbali jaamu yàlla yi surtout ci lu mel ni lu wàllu jëm ci wàllu faj rab lu jëm ci wàllu ku ñu takk xala ci wàllu ngóor a en grosso ak yeneen ak yeneen ak yeneen seet nag nee leen moom seetatut moom day gis ndax koo xam ne boo ko toogee wala nga woo ko téléphone moom mu yeble ku ñëw sa kër seet li mu soxla yëpp ñëw wax ko mu di la ko wax par benn kookee nee naa leen fi mu day gis Serigne Souleymane ngi lay nuyu ñi ngi lay ziar waaye ñu ngi lay dalalaat ci biir jotaayu xam-xam bi nga xamante ne mooy xam sa jàngoon naan naan salaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatullahi taala wa barakatuh aoudu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk julli ñi ñoo leen di ziar di leen jox ëllëg bu mu xam ne wa asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ziar bu baax moo leen internet bi ak moo leen ko di bàyyi xel. di def xalaat ñun ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax Cheikh Talla tamit ñu ngi lay nuyu bu baax. gën mm. jël lay gis nag. ñu ngi lay fay bu baax mais jamono gi xam nga fan yii génn génn moom xaw a jàpp rek. tukki mm. bi moom xaw a jàpp mais ñu ngi fi. Mm. ñu ngi sant bu baax nag loolu affaire yi dañ nekkoon seen itte rek. moo taxoon ñu génn yenn dëkk yi def sax. looloo taxoon nga woon ay nuwaasal. yeneen dëkk yi sax ay causerie. d' accord wutiwaat fa ay xam-xam yokkiwaat ci wàllu. faj lu bëri bëri bëri comme jaabi bi ñu soxla looloo tax ñuy génn benn saa yi ay xam-xam hmm. bu dara alhamdulilah. alhamdulilah jërëjëf sëriñ Souleymane Diop ci nuyoo am solo boobu waaye itam ci leeral boobu nga xam ne bu béy ko macha allah waaye du tee la ñuy tabalaat suñu loxo euh, laajaat bu baax a baax sëriñ Souleymane ñu gis ni ñaar ba ñetti yoon yi yaa ngi jàpp yoonu gànnaar bi yoonu Mauritanie lan mooy sabab bi dëgg dëgg dëgg dëgg ba nga génn réew mi dem gànnaar luñ la woola la wala looy gëstu ji la wala am client yoo xamante ni dañ faa nekk di soxla sa teewaay foofu. waaw Cheikh Talla xam nga dama bëgg tamit du la damay dem di liggéey la. Hmm. dama am ñoo xam ne damaa retracé maa ngi mel ni liggéeyam. Hmm. dem fa liggéey yi daal di ñëwaat. Hmm. nga xam ne incha allah loolu laa bëgg a kattu yàlla. mais du dara waaye nag beneen dëkk boobu mooy tamit damay dem sàkk ñu xam-xam. tey waaw waaye nag fekkee du waa fa mu jëm wax dëgg yàlla damaa dem ba am ñu ma liggéeyal nag. ay liggéey daal dégg fa waaye du dara. incha allah. masallah mu doon lu am solo ndaw ñaa ngi xam ne fi ne wax dëgg yàlla suñu borom dogal na nga dem ñu wóolu la yaakaar la doyloo la gannaaw yàlla euh, wóolu la ba nga dem foofu noonu maanaam ngir seen i mi dëkk seen bëgg nga taxawu leen ci kéem kattan gi nga xam ne suñu borom def leen na la ko ban nga ko jëlee bu baax léegi ndax def naa koo dem benn yoon bu bu neexul doo fa delluwaat yow nga dem benn yoon delluwaat bay delluwaat la kon foofa lu mu dem lu mu dem waaw sant yàlla ndax àdduna doomi aadama dañoo wax sant résultat suñu borom moo ko mu waaye gëm na ndax jaam moom day sabablu day ñaan yàllaay dogal yàllaay nangu mooy mooy indi. Mhm. kon nag yàlla def nañu ni fi maa xam si wàllu rabat yooyu yëpp ñoom yàlla dafa nañu ci résultat ñu ci jëfandikoo ci côté Mauritanie. Mhm. yàlla dafa nañu ci résultat ñoom gis nañu résultat ba am seen seen yëkkatiwaat seen alal. yëkkati mhm. ñu ñu loolu lépp sant yàlla la. sunu borom dogale yooyu dafa am ko loolu da ngay sant yàlla subhanahu wa taala waaye ñu jëmmi Souleymane mm-hmm. mais lépp loo xam maanaam yéen ko wala bëgg a tane mm-hmm. wax dëgg yàlla bii fi guddee ko ñu ñu gën naa fi ne résultat boo xam ne moom moo wëñ ko wëñ di dem moo wax ma ko bakkaat ma ko wax ma ko dina mm-hmm. jëw yaa ngi fi macha allah mu doon lu am solo ni nga ko waxee léegi nii résultat moom dafa gën a wóor lépp te defe naa ne ko képp koo jóg di dem ci joŋante bu mën a doon wala muy sàkku itam résultat wax dëgg yàlla moo koy jëlee euh, mais bokk na ci tey nii sa yoon Mauritanie li ëpp ci li ngay dimbale doomu aadama yooyu ci ban fànn la ci wàllu ngóor la ci wàllu rab la ci wàllu ñaan wala ci ban fànn la. waaw yàlla damaa dimbali ëpp nag wàllu ubbeeku la ak wàllu rab xam wàllu kattan kattan moom yàlla dugal nañu yow man dafa may tere. dana la ci defal la ñoom. waaw dëgg yàlla am nañu si dina si wàllu kattan. am na ñoo xam ne si wàllu wërsëg laa defal tey ñoom foofu ñun dëkk si sax. waaw si wàllu nag si lay jigéen ñi. tey góor ñi dañoo wërsëg moo si ëpp. Mm-hmm. waaw loolu moom yàlla dugal nañu la si bu baax a baax maa insha allah. loolu nag su si jëfandikoo ah ñu si bëri mooy wàllu ñi leen ñi nga xam ne doo am wàllu góor. am problème mu ngóor wala mu jékki-jékki takkale ko xalaat. Mhm. loolu moom dama koy dindi. Mhm. dama koy dindi sa mën naa la yegg yow mu dindi ko fa ma toog sa kàttan yow laa baaxam. waaw waaw mu wërsëg mooy ñu ci jamantee moom am la rab moom moo ci ëpp ndax sa foofu moom. Mhm. ndax ñu ko yor <coughs> bu bëri. yàlla ba yor résultat yi dafa jëkk a jëflante ñëpp. ah <coughs> yàlla bi nga xam ne moo def résultat bi bu nga xam ne moo doon ñaan. yàlla dinañu demee si wax dëgg yàlla naa la ñu ñëwaat ba bu dëgg dëgg neex yàlla sant naa fi yàlla daal. alhamdulilah macha allah mu doon lu am solo ndax ni nga ko waxee léegi résultat moom moo gën a yëg coow lu fi ni jamono yi jot na fi ñu yëngatoo mais léegi ma gis am na koo xamante ni biir Djiko Diggi mi ngi yónnee ay messages am di sant di gërëm moom ci wan wàll ngeen doon jëflante. waaw kooku mu war a jël soxnaam. Hmm. yàlla li nga xam ne nag surtout la ma ne ko nag wax dëgg yàlla mënuñu waaye nag sabab la si yàlla. Mm-hmm. dañ koy def sax sangam ak sangam ñu def sax boo wax. Mm-hmm. yàlla bi nga xam ne moom résultat bi moo waxal ko comme ni ma waxoon mm-hmm. ko. mu ne moom soxnaam ñu sentir bu mu duggee noor seen mu ne mosuñu kaa sentir. ma ne ko xaar ma ne ko ah ma comme baax na ma ne ko incha allah fexe ba tey. da ngay jël sa soxna sa kàttan ak yàlla baax. te mënu ko. te ku ne ba mu takkee soxna si ba léegi fi ne mënul mënul woon sa yëg boppam ba di jëf jël soxna yàlla waaw wax dëgg yàlla mënul woon sa yëg boppam yëg boppam ba xam ne moom nit mu yëgee boppam su wàllu kattan mm-hmm. mënu ko woon saxatam mënul yëgee boppam ba jigéen di nit boppam nga xam ne génn sa mu mm-hmm. mënu ko woon yow ngeen jëflante à distance nga fexe moom ba bii mu yëg boppam su benn femme te tey la war a jël soxna tey dinaa la ko jël sa soxna si kattan bi man li ma jaaxal mooy distance bi ma nga portel yaa ah maa ko <laughs> waaw yàlla bi yàlla bi te dara te dara tawu ko te moom moom lépp. lépp lépp man loolu loolu loolu dafa garaaw de. lii may lii may ñaan. c'est ça. lii. Serigne Thiel day am di jaam. waaw ma am di jaam rek. di jaam mooy am solo nit ki tooñ jaam xam nga jéggalu di jéggalu. ndax يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم أموالا وبنينا xam nga ngeen di indil ko ba banina kon soo bëggee doom dañ koy ñaan si istigfaar mhm. soo bëggee dara dañ koy ñaan si istigfaar mhm. kon soo ko ñaan si istigfaar mhm. ah te mu nangoon na suñu borom mën a xam ne moom dana tëw ko digg leen yàlla yàlla fu turaay insha allah su ma ne du teew nii nataal danañ leen déggal bu waa bi ngeen dégg ko confirmation bi nga xam ne jëm ci joxe na ko ndax moom ci lu leer la ñuy dox ci lu ci lu ci lu mel ni mbir parce que am na ci ay jaaxal yu newul ci parce que coowal tamit dafa lëmbee réew mi dafa lëmbee àdduna te wax dëgg yàlla ñun fu ñu dem fu ne rek xam nañu fa ñu jëm ba tax na du bëree bëree bëree bëri bu ñu ko waxee wala lu génnee ko rek am na ci kaw lu mu sukkandiku ci luñ ko teg lu wér loo xamante ni ba keroog yi ma fi am ci ngoon duñ ci puus duñ ci dellu ginnaaw te duñ ma gis wàllu kattan boobu nga xamante ni lëmbee na Sénégal nga nekk Sénégal gaa yi xamuñu wala xeeb la ci nga génn di ko ay jàmm yàlla ci bitim réew loolu mu demee. waaw xam nga la saamaam daan wax a jege moom. waaw lay wax dëgg. man nag amuñu. lu la jege nga xool waaw ñun amuñu xam-xam mais sant nañu yàlla moom su ñu yàlla dégg si wàllu xam-xam ñu ngi koy utilisé te ñu ngi ciy gis résultat. ki. la ngay def benn yoon ñaar yoon ñetti yoon ñeenti yoon te mënut mm-hmm. bu amul gàtt gàtt war naa xooli sa bopp. Mm-hmm. sant naa si yàlla su nekkee am naa si erreur yi te may ñu sant yàlla ndax erreur mënut a yàq. mais yàlla dimbali nañu ci mbaaxam ak mën-mënam. Mm-hmm. ah li tax ñu dem ba nit ki nekk bitim ne dina woo loolu am jub la. Mm-hmm. nit day jub. la mm-hmm. nga mën na def ko loo mën na baax. sëriñ. loolu la lii laa mën liggéeyee sa la nga mën. la nga mën bàyyi. man loolu laa gëm. te mooy dëgg. mais yàlla defal na ni moom ñu ñu ñu mën ñu koy liggéey. Mm-hmm. ñun ñu def ñu koy defal jaamu yàlla yi yàlla mu ngi gëm ñu ngi gis résultat. Mm-hmm. côté boobu ñoo ngi sant si yàlla bu baax. alhamdulilah waaw waaye nag moom boobu moom wax dëgg yàlla wàllu kàttan moom. Mm-hmm. yàlla dugal nañu si moom ñu si liggéey moom bëri na. wàllu kattan li nga ci liggéey bëri na li nga ci jëflanteel bëri na am naa te résultat man ci sama bopp wax nga ma wan nga ma jox nga ma te bu ma jógee bala maa génnaat di nga ma joxaat incha allah rabbi taala mais ci wàllu la vraiment dafa mel ni àdduna kuy dox am na nga ànd nga ak lu sabab loolu ak tey jii rab yi naka la doomu aadama yi mën a def ba kenn ku ci ne la ànd ak yow ndax ñii ne rab mën nañ koo dindi ñii ne lañ rab mënuñu koo dindi waaye buñ ci mën a doon nit ki naka la mën a def wala mu àndal mën koo defal jàmm di ko aar di ko yër kaaraange te di ko ubbil wërsëg naka la doomu aadama di war loolu lépp la dañ koy adab la nga koy adab tur bi la ñuy arrêté commencé kaa yokk wàññi wàññi. lim bu mu tombé la loolu lay génne si sarax. Mm-hmm. mais loolu soo xamee arrêté rek. Mm-hmm. nit ki dañ ko mën a déglu ak aw xaalis dañ ko mën a déglu ak aw mais su fekkee rab bi yàq na moom dindi ko moo gën. dañ jàpp ne xam ne soo bàyyi xale bu fekkee ne tuuti mën na waa war. mën mm-hmm. na ay jafe-jafe. waaw waaye rab bu bon bu dindi rek am na rab yu baax am na rab yu bon nag. am na yoo xam ne jullit la am na ñoo xam ne ay jullit. waaw yoo xam ne lu ñu julli yooyu yëpp jarul si da ngay génnaat dina xam maam lii nii mooy mooy alal dina alal ko sa tur. soo alalee sa tur nga compte que mu ngi doon nga génne mm-hmm. la sama sama. jërëjëf baax yàlla suñu borom gën a dëgëral yi nga xamante ne rek wax dëgg yàlla naalal nga ko naalal nga ko askan wi ci kàttan suñu borom mu mel ne rek ba tey ni nga ko waxee léegi rek bala maa génnaat foofu noonu fi ma bëgg ñu duggaat fa mooy tey jii ñu ko waxee bu ma la déggee bu baax a baax mënees na ko génne ci doomu aadama ba mu set. kàttanam yàlla si biir maanaam lu ko dugg la. waaw mm-hmm. ñu ngi kàddu gi. bu fekkee lu mu judduwaale la wala la. ba am ban sa lan may saraxam. ma ñaaree ko foofu dëppale kaa ak raw ko. Mm-hmm. ok ba xam ne du ko ah du ko yàqal du ko def aar. da ah, mm-hmm. ko def lii ñëw da koy gis. kon daal sa xam ne bi nga xamante ni moom da nga ko judduwaale moom mënee su ko dindi. ah man man man ok waaw loolu de leer na <laughs> alal ndeysaan loolu leer na jërëjëf Serigne Souleymane xam naa ñu ñu njëkkanteeg waxtu bi ndax daanaka léegi tey muy waxtu bi xëcc jëm ci jeex mais Serigne Souleymane fi nga bëggoon di jeexale ko neex na lool ndax mooy wàllu li ma ubbee nee naa loolu moom yàlla alhamdulilah te tamit salaat loolu sant yàlla la. Mm-hmm. gis na àdduna teral. ni ñuy ni ñuy di dawee bàkkaar. Mm-hmm. nga daw ay ziyaaba. yàlla du ay ziyaaba. ndax nit ñi bokk bu bëgguñu ne du résultat. Mm-hmm. mën na la seet. mën a gis. sëriñ dëgg day gis. ay résultats loolu nag doo ko bëggee am dëgg. jël istigfaar ba léegi ci istigfaar lay nekk. ci istigfaar lay nekk bokkut ak zikrullahi bokkut ak ne tur yor tur yàlla bu mag. Mm-hmm. da ngay zikkar mu muy si ne man maa yor benn tur yàlla bu may zikkar bu mu muy si ma. Mm-hmm. ba ma yor ko teg ko ba pare. Mm-hmm. ba xam ne muy si ne ma ma yor ko di si seet. maanaam nit ki toog bi ma xool mbir bi nii damay xam si yow damay xam lu nekk si yow. waaw ma wax dëgg yàlla après taf sama mbir sama nopp yi nii. waaw foo mën a ne mën naa ne diw nangam la sama. loolu moom maa ko yàlla ba sànq ni loolu mujj ñaa mm-hmm. ñoo fekk ko jublu France ñaa mm-hmm. ñi ñëpp may la wax nangam leen xam nangam am nangam moo leen xam mm-hmm. waaw moo nga am na loo gis rek da ngay rew yàlla si li ngay def soo la rew yàlla si li ngay def yàlla dimbali la si lim karagas ndax bañ naka bala jàngi alxuraan dafa la alif laam miim daalika kitaaba fi hudan lil muttaqiin hudan na nga jub lil muttaqiin ñaari yooyu soo koy doxee hmm. yàlla bi nga xam ne moom moom mën a àtt lépp hmm. mu ngi leen a àttal di la ubbi te doo sonn wàllu ñaan moom wax dëgg yàlla dafa baaxoo feet dafa baaxoo maam gis man nag damaa am gaay yu ma àndal hmm. mais ñun ñëpp maa ko la dafa am gaay ma àndal te ma àndal la moom si biir gaay yi la moo tax kenn leen si wëcc na leen si wëcc macha allah gaay yi nga àndal ci gars yi yàlla yi lañ kon nag nañ ci gars yi wat am na solo lool mais est-ce yi tey jii mën nañoo wax bu ñu duggee tey ci actualité euh, doomu dugal la ci Sa Thiès mi ngi waat combat wam ak ki nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy doomi Lébu Dieng nga xam ni combat bu gën a combat bu tensionnel combat bu bëri ay jafe-jafe ndax li ko sabab mooy dañoo gis mag yi di le l'ancien roi des arènes Balla Gaye boo ñaar daan ko ba kii boo jaay jël bu amul benn nga def ci huit ci bëre. Mm-hmm. ci fekk ne ci bëri. waaw ñun bëri lañ gis amuñu baat lañ wax ci bëri lañ gis waaw yow léegi lan la la gars yi war ñëw ci combat euh, Sathiès bi ak. Sathiès Reug Reug ah sunu yàlla war a gëm laa moom de. Hmm. sunu yàlla gëm ndax laam bu dañ koy jël. laam bu dëkkul fenn. laam hmm. alalu jinde la. la mu dàpp dàq topp terkat hmm. kooku dàq indi victoire si biir kër hmm. mais comme Sa Thiès Reug Reug ba fi mu may toll nii may wax ak yow nii nii may wax ak yow nii Sa Thiès mooy yoon nam bi mooy yàlla waaw alhamdulilah instant yi nii Sa hmm. Thiès waaye dëpp mën na ci am ndax xam nga lu ma la doon nekk bi combat Balla Gaye dag ma ni ma xëy ma ne nga ne ma dina am koo xam ne cummi kaayam dana ko wax kibaay ba cumikaay nga waree la mu def ba cumikaay nga war nga nga wax ma ko man la dama koy génne nga ne ma génne loowu ma la li ma la du dañ ah, combat bi ñëw demee noonu moo tax bi ngay waxaat man la ci ñun li ñu gis bëri lañ gis amuñu bàttali ba xam lu waaw lu waaw ndax comme Balla Gaye ba dafa aju dafa bëri mhm. gàllaaj dafa ko tegtawoon mhm. te combat boobu suuf du combat suuf deret te que si ëpp suuf deret koo koo koo koy daan. te boobu suñ boobu noonu moom suñ boobu at bi at bi atu Boy Niang la ak moom. Hmm. atu Boy Niang kenn mënut a tey mu tax tax tax ba daan. kon de suñu Modou Lo am na problème ndax ñoom seen. combat taxaw non combat am loolu moom waxaguñ si na mbay si kanam. non si si ñeneen contrat bi. de incha allah kersa maanaam ku si wax naa muul wa bay daan wala muul wa bay daan te mën na kaa teg nag kenn ku ne kersa baati di bopp. Mhm. mais guddi yi toll nii. Mhm. booy ñaar mhm. na gàllaaj doon waaye da moytu booy booy booy booy. moom la. loolu loolu dafa doy waar. nañ ko bàyyi xeloo. jërëjëf Souleymane loolu leeral ci na ta amati na solo fi may jeexalee rek ñu def mooy lan la la gaa yi wanaat ci coow li am ci réew mi diggante Sonko Macky Sall élection 2024. am na gaa daaw takk deer. Mm-hmm. takk deer. Mm-hmm. na nga métti. takk deer. takk deer laa wax. waxuma la jëriñ sax. jëriñ mm-hmm. moom da nga moytu ne mujj bi kaaraange. mais takk deer yi. par benn par benn dana wàcc. am na ko wàcc biir bi. xaw ma ne waa par kenn par kenn dana wàcc. bii moom maa la ko wax. ku si amul gàllaaj. guddi yi toll nii barke yonent yàlla Muhammad wax si yéen gisuma waxati waat. lu baax si ñoom. Hmm. te ma gis ñun yëpp sacrifice yi ma gis ñun hmm. yëpp. deret bi tuuri ñun yëpp ak deret bi des na toujours am na ak daal di aw fan yi bu gën a pire bu amul te nit ñi leen def seen génn li may njëkk a jooy. Hmm. mais réglementaire bi muy sànni sa armée yi. naka la ma dégg ñu sant am mais naa ko mën ñëpp di dégg yàllaa dañuy yàq sa kanam tuuti te lii am mooy gën a tiital ñu def hmm? te maa la ko wax nag ñett ëmb tën dee leen ci mi te man maa la ko wax sa kàttan nag yàlla na laa ko teg te bu ma ko nit sama ma nga bakkam wala maa toog li ma neex arrangé que déedéet li ma yàlla wan la nga teg ci sa bët jaxal ma teg ci sa bët jaxal vingt et un jours yoo xam ne maa ngi toog Mauritanie toog nii li may doon deux cent vingt asakaam te maa ngi may delluwaat te bu ma gaaw damaa toog gerte ma ñaar mais lakk ma tey nii xaar sa armée. man mm-hmm. ndox si kanam tuuti. ba maa la ko waxal bu armée nagul yàlla yéen ci yàlla Muhammad comme day te nii ku si moytu weer suñu ñett te nga am ñu faatu te ba maa la ko dama diw ak diw sax suñu leen wala nangam ak nangam suñu leen bi. xaaral ñett si gox yu bokk yu bokkul suñu dëkk. à retenir à suivre. bii moom VAR baa ngi fi de. sëñ bi man sóoruma VAR man dama doon VAR sa kàttanu yàlla. soo ko Macky Sall ne élection deux mille vingt quatre yi loolu. yàlla yàlla def jàmm. Hmm. moom it mënut a dugg. dama yàlla néew si. kàddu yi mujj yi lu muy doon Serigne Souleymane. yàlla yàlla def jàmm. ak kañ lay delluwaat ak buñ boo delloo moom seen. incha allah man naka la mën a def ba jot la. wallaahu alam yàlla xam ne mën naa leen hmm. xam ne incha allah. yàlla xam mais yàlla yàlla def jàmm ci réew mi. Hmm. am na def jàmm si réew mi. mais Mauritanie foofu naka la la gaa yi mën a jotee wala ñu nekk Mauritanie def naa émission bi tam bu ñu la bëggee soxla lan bëgg la. waaw Mauritanie daal man fan yii lan ma séntu si biir semaine yi incha allah bii di jël nii si kàttan yàlla. Mhm. xaw ma ko lu bis lay dàq daal waaye am na semaine bii mooy bu ko génn. am na numéro téléphone yu ñu mën a jotee foofu. waaw incha allah moom moom loolu xam ne numéro téléphone yi. dinañ ko joxe incha allah. incha allah incha allah. neex a yàlla yéen a ngi déglu ba mu baax ñoom dinañ fi jot kàttan yàlla mais waxtaan itam ñu lay wax moom du ma def weekantu fii rek mooy def foofu. moo moo def foofu waaw moo def foofu fu ma ko waxee du ma ko def bu neexee yàlla. incha allah incha allah neexee yàlla. jërëjëf Serigne Souleymane Diop sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla sama borom dolli ko taxawu dolli ko lal fanaan wéral ay cëram yeggali yéeneem yëpp ci dara jëm ci yàlla moom nag rek wa salaam waaye itam sant bu baax baax téléspectateurs yi nga xam ne ñoo baaxam suivre seen émission bi nga xam ne mooy faj sa jàngoro te dara tax ko jóg loolu maanaam jukki ji xam-xam gëstu ak ndimbal ci mu jëmaat ci biir jaamu yàlla yëpp moom itam ñoo ngi leen ñaanal kenn ku ci nekk mu nekk lay ko doon ak itam yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi dul jeexal dara te am lépp sañ lépp yàlla yàlla defal ñëpp jàmm dafa ñu fan bu gudd may ñu wér def ci suñu réew mi jàmm ba nu yëgale kenn ku ci nekk sa yéene sa wér ci sago ci dara jëriñ ci yàlla xam ne dig daje incha allah rabbi taala ci suñu yeneen jotaayu xam-xam ak seen jotaay bi nga xamante ne mooy parce que jàngoro wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa